alors salaamaaleykum sama mbokki euh, followers yi nga xam ne ñoo may suivre sur ma page euh, Facebook SOS hmm, Nature Sénégal wala ci sama chaine YouTube SOS Nature Sénégal. alors dama leen di présenter benn plante assez particulière boo xam ni temps yi mooy buzz ci euh, feebaru siburu bi kii moom mooy mantamaare xool leen ko bu baax. day def à près entre day def à peu près dix vingt centimètres xool leen ko ngi nii voilà xam ngeen xaw na gudd alors lii mooy reen yi ngeen mu mel jël ci c'est vert alors yaa ngi nii day am ay guus comme ñebe mais aussi bu ngeen xoolee fii doom yi euh, kii fleur yi gis ngeen dafay jaune day xaw a jaune nga donc feuilles yi dañuy xaw a tuuti ngeen sew tuuti donc lii mooy mantambaare da ngeen koy gis nag bari nañu koy wut mais dañ koy jaawale ak yeneen plante moo tax ma leen koy présenté bi alors plante bu baax ngi nii bari ay yu muy faj am na sax ñoo xam ni daan nañ ko utiliser dañ koy utiliser pour yàq biir mais conseil wu ma leen ko jigéen ñi ëmb ku ko ci naan mën na yàq sa biir mais li tax ma leen koy présenté moom mooy plante la bu nga xam ni day bari na yu muy faj bu dee da nga sibiru wala nga am palu wala ngay sëqat walla nga am euh, sopis n'est-ce pas plante bi da koy faj nan nga koy defee c'est pas difficile da koy jël jël feuilles yi takk ko raxas ba mu set lu tollook euh, benn benn rameau lu toll nii nga jël ko baxal ko pendant dix à quinze minutes soo paree nga xent teg bu fekkee ni pour sibiru la ak yaram buy metti danga koy jël naan ci loo xam ni tolloon na ak sa loxo da ngay tibb ak sa loxo naan ci boo ci naanee ba pare nga daal di koy sango boo ko sango rek nga di da ngay gis ni da ngay daal di ñax donc day daal di féexal sa yaram donc looloo tax ñu ni dafa baax ci sibiru ak palu day firi sa yaram alors bu dee ay plénorragie moom mooy soopiis ak biir yuy metti nga xam ni par exemple bu fekkee da nga wasin ba pare jigéen bu wasin meret dañ koy déconseillé nag koo xam ni danga nga ëmb bu ko naan mais bu fekkee ni da nga wasin mën nga ko jël baxal ko buñ ko baxalee dañ la koy jël di la ko dàmpee jël ci tuuti du tolloog euh, ngëbu loxo euh, ci ndox hmm, wala kaasu attaay diggu kaasu attaay jox la nga naan li ci des ñu jël ko raxasee ko euh, dàmpee la ko ah loolooy génnee meret mi. bu dee blé orage yi moom soo soopis ak yeneen yi da nga koy jël baxal ko di ci jël kaas di ci naan kaas ataaya am na yoo xam ni kaas suba kaas ngoon mais man li ma leen di conseil compte tenu du fait dafa am un peu de toxicité li ma leen di xalaatal moom mooy ngeen jël ko bañ a dépasser dose yi nga xam benn kaas suba wala nga jëf benn kaas ngoon man daal loolu laa leen di conseiller maintenant reen yi tamit yu baax la reen bi lu tax mu baax mooy moom tamit day faj waaye surtout dañ koy utiliser ngir ñi nga xam ni dañu euh, dañuy euh, dison pour protéger wu contre les mauvais œil contre les mauvais esprits donc ñi nga xam ni dañ leen di tooñ wala ñi nga xam ni dañu bugg seen kër dañuy aar seen kër mën nañu dagg lii reen bi ci buntu kër gi bu dee nag yow da ngay wut lu muslukaay hmm? muslu ci borom yu bët yi ak ñi nga xam ni mooy loolu alors li lay wax see simple da ngay jël reen bi nga dagg ko juróom-ñaari dagg takk ko sa ndigg boo ko defee incha waxuma bët waaye kenn koo xam ni am na lu yéene bu bon ci yow du ko masa man ci du du ko masa euh, en tout cas du la masa atteindre ba tax na donc dañ leen koy conseil ku baax la suñu maam yi dañ ko daan utiliser donc fii li leen di wax yëpp loo xam ni euh, ay mbiri maam la moo tax donc c'est de recettes de grand-père et de grand-mère moom la ñuy jox ni voilà donc kii mooy mënta baare baax na trop trop trop trop trop alors lépp euh, li am important moom mooy boo koy defar aussi da ko raxas bu mu set n'est-ce pas donc li koy xàmmee nii la feuilles yi dañoo tuuti sew alors ngeen gis nii donc euh, day am ay euh, ay guus mu mel ni ñebbe ci kaw ba pare retenez aussi que fleur bi dafay am fleur ki mooy mantambaare pour nga gis ko ci Dakar de plus en plus jafe na bu yàgg ba ay saxeyaay la daan def waaye léegi. ci jardin yi ngay dem boo demee dañ naan la ah am na sax ñoo xam ne dañ ciy laaj as euh, xaalis pour euh, jaay la fleur yi pour jaay la xob yi wala euh, parce que ñoom dañuy dindi xob yi n'est-ce bàyyi ko noonu pour que moo mën a continuer di produire mais normalement c'est une plante sauvage qu'on peut trouver dans tous les espaces herbacés fii ci Sénégal voilà un peu ce li ma leen bëggoon wax ci garab gi dinaa en tout cas euh, su ma koy publier jox leen yeneen vertu yi nga xam ni moom moo nekk ci plante bi nga xam ni euh, en français on l'appelle euh, le nom scientifique c'est Cassia occidentalis noonu lañ ko waxee c'est le nom scientifique waaye nag bu dee bu dee ci français dañ ko wax café nègre boo xoolee odeur bi boo ko jegee nii odeur bi c'est un peu repoussante day xaw a xasaw moo tax mu baax nag ci kër Voilà. Merci les chers amis. Portez-vous bien. C'était avec SOS Nature Sénégal. Merci.